jërë ngeen jëf euh, mbokki Baol Info TV mbokki nag maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokki nag tey dañoo bëgg ñëw wax ci li nga xam ne mooy Barça wala Barsàq gi ndax fi mu nii xale yi dañoo mel ni lu xabtalu maanaam jël gaal yi di de bëgg dem ci bitim réew ma ngi mel ni tulleeg màlle limu ñi nga xam ne tamit ñoo ciy faatu dafa bëri li xew mbuur barki bu gis ngeen ko ak limum ña fa faatu waaye ñi faatu téwul tamit xale yi ñoo ngi jël gaal yi ndax seen diwaanu Mboro tamit am na gaal goo xam ne jàpp nañ ko fa barki démb tamit dégg ngeen marine nationale ñeneen ñoo xam ne doon nañu jël gaal gi doon dem si bitim réew loolu danañu si euh, wax dinañu wax tamit ci li nga xam ne tey mooy jëm ci euh, wàllum Cheikh Omar Diagne ak kàddu yi nga xam ne yëkkate na ko euh, loolu dinañu ci dinañu ci yëkkati ay kàddu lu jëm ci wàllum reddition des comptes tamit dinañu ci wax. Euh, tey nag mbokk yi dañ si seq waxtaan ak euh, Idrissa Diop ndax am na xalaat ci immigration clandestine bi am na xalaat ci reddition des comptes am na xalaat ci mbiri Cheikh Omar Diagne euh, Idrissa maa ngi lay nuyu. waaye jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di kontaan kontaan si sax ah ñuy seq waxtaan ci li nga xam ne moo xew ci suñu réew Sénégal. ci li xam ne moo xew ci adduna bi yëpp. ñu koy waaw waaw di euh, vraiment nga teew fi tey. jërëjëf waaw euh, Idrissa euh, li xew Mbour dégg nga ko gis nga ko Sénégalais yëpp ñoo ngi koy méttitu ba ci président de la république président Bassirou Diomaye Faye démb ci conseil des ministre waaye damaa def ak yow émission yu baree baree baree bari hmm. benn bis nga ne ma dangaa dem wër place yi. Caano hmm. Malika ak nga wër. bi nga demee danga ne xale yi dañ laa wax na la ñun dañuy dem maanaam ñiy déglu émission bi bu ngeen duggee Bawol info dangeen ngeen gis interview bu ma ci defoon ak euh, Idrissa Diop sa xale yi dañoo amul espoir ci réew mi ci kilifa yu bees yi wala lu xew am na sax ñuy wax ne xale yi dañ leen a xabtal xale yi kenn xabtalu leen <laughs> dara xabtalu leen dara jotu leen jotu leen xale yi la ma daan wax démb ak bërki démb ak bërkaati taati démb moom lañ may waxaat tey moom lay waxaat tey mooy ñun avertir nañu conscientiser nañu mobiliser nañu ak suñu propre moyen pour ne xale yi nañu aar xale yi parce que fii nga toogoon keroog ne xale yi bu ñu toogul ci réew mi kan lañ ñii di tabaxal réew mi hmm. yow wax nga ko question boobu hmm. yow moom jëli léegi jëli bu ñu toogee tey avertir te kenn waxuñ ci dara ñun xale yi am nañu chance boo xam ne ñun xale yi bu ñu demee ci plage yi xale yi dañuy déglu parce que dañuy dégg. Mm-hmm. maa ngi nii nii nii maa ngi jóge ci plage wu plage wu Malika fële. Mm-hmm. sànq laa ñëw. Mm-hmm. xale yi lañ ma daan wax yaa un moom lañ may wax tey ne kenn mënu leen a téye te dara mënu leen a rek moo leen mën a téye moo ñu am fu ñu jàpp ñu wute liggéey ñu teral seeni waajur teral seen njaboot teral seeni soxna ak seeni baay ak seeni yaay. mais xam loolu rek la ñu bëgg dañu wut liggéey. waaw mais mais Idrissa man xale yi bi ñuy dem ci jamonoy Macky Sall. Mhm. ci dem gu bari gi. Mhm. man dama bokkoon si ñi naan xale yi dañoo amul yaakaar. Mhm. ci Macky Sall. yi dañoo gis ne Macky deful benn jéego pour ci emploi des jeunes ma gi ma wax timit naan euh, nguurug makesal defuñu li ñu war a def ci mbay mi euh, waaye jàppoon naa ne bu ñoom Ousmane Sonko ñëwee xale yi dana danañu bàyyi géej gi man damaa bokkoon si ñuy gëm ne Ousmane Sonko bu ñëwee ci réew mi bu ne xale yi dem leen tëddi vingt heures sax xale yi dem tëddi vingt heures. Mhm. Ousmane Sonko nee na xale yi bàyyi leen géej gi bàyyi leen gaal gi dem bitim réew du solution waaye dafa mel ni. ndaw ñi nga xam ne ñoo doon wàcc ci mi doon défendre Ousmane Sonko dafa mel ni kàddu yooyu dégguñu ko nag. gannaaw yi waaw mais kooku stratégie la c'est gis nga Ousmane Sonko man bërki démb laay waxtaan ak fii ci suma studio fii nga nay nii. Mhm. ak Baba Mal. Mhm. parce que Baba Mal maa ngi préparé ak moom benn way boo xam ne trilogie man la Idrissa Diop Baba Mal ak Carlos Santana ñu ngi préparé affaire bu doy waar. Mhm. cest xam nga ci lan la jëm mooy jaaykatu gerte parce que bu jëkk ba esclavage dafa am lu ñu ñu nootoon maanaam nasaraan yi dafa am fu ñu daan noote ñu xool ne suñu yaay yi jaay gerte yi di ko jox population bi dañ leen di gën a jox doole maire yi continuer di defar gerte gi di ko jox di ko jox euh, population bi. ban message ngeen bëgg a lancer. message bi ñu bëgg a mooy la nasaraan daan tere dañu ko interdire ñun. Hmm. loolu moo daan jox doole ak Pastef ak ak ak maanaam ak. Euh, courage courage su ñooñu taxaw am doole parce que bëgguñu woon nasaraan bëggul benn population fii ci Afrique ci Sénégal fii ñu am doole. waaw mais mais mais Idrissa. donc message boobu la ñuy lancé. pour de leen El Manicero El Manicero xam nga mooy lan. Uh-huh. El Manicero mooy jaaykatu gerte caaf. mais yéen da a war a lancer message ci wàllum immigration bi. waaw mais loolu dinaa ci ñëw bu ñu lancer message man ak Baaba ba xam ne gaal googuy dem Baaba Maal ne gaal googuy dem dafay yàpp. ay xale jigéen yu yànj te jigéen yu yànj yooyu dañ leen di tertu ci plage boo xam ne ay ñun ñoo leen di tertu man ak Baaba Maal ak Carlos Santana ñuy ñuy jigéen ñu rafet noonu image boobu au lieu que xale yi di dem géej nañu jàpp image boobu Baaba Maal wax c'est très important ñu bàyyi di traverser ay géej yeeg ay yenn situation yi wax naa leen ko ba tey ne leen géej gi du solution yéen wax ngeen ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko dégg na leen wax ngeen ak Diomaye président Diomaye Faye dégg na leen léegi. nee nañ leen danañ liggéey réew. voilà toog leen li may lancé comme message man mii ak ak El Hadj mal Maal ak Carlos Santana ak Sénégal yépp mooy na xale yi toog ci réew mi. pour ñu defar réew mi pour ñu tabax réew mi. mais loolu rek mooy solution solution bi du. waaw loolu laa di wax ne solution bi du jël gaal dem di di kii ñaan dañ leen xabtal kenn xabtalu leen. mais mais xam nga tey dañu leen euh, wutal liggéey. grand Idrissa man mii di wax ak yow. Mhm. man dama am yaakaar am espoir. waaw waaw ci autorité yi. waw man damaa jàpp ne. Mhm. xale yi dañoo waruñoo jël gaal gi. Mhm. damaa jàpp ne espoir yaakaar juddu na. dëgg la ndax li Ousmane Sonko taxaw di ko wax ne fàttewuma li xale yi daj ba ñu accéder au pouvoir jàpp ma ne dina mos a fàtte taxawaay bi mu war a am ci jeunesse bi man euh, man loolu laa gëm mais tey euh, Idrissa yaa ngi ko fi benn bis nga ne surveillance bi war a am ci plage yi xam nga tey fu mel ni Mbour fu mel ni Mbour Malika plage Kayar ak feneen feneen du ñàkk xanaa état déployé fa ay service de renseignement mais ñun jili tey mbour nan lañ mën a organiser li xew mbour ay lopp téeméeri nit tëgg la ñuy tëgg waxtaan ci seen biir pendant lu mat weer dajaleb xaalis ba mën a jël gaal gu ndaw gi di yóbbu par benn di yóbbu par benn te ba léegi information boobu maanaam euh, jotuñu si loolu Idrissa yaa problème moo tax gis nga euh, jili teesante baaxul ŋàññunte baaxul baaxul fayunte baaxul te loolu la loolu la nit ñi constaté te kooku dañ koy wax man Ousmane Sonko suma rakk ju baax la. Mm-hmm. président yi fay suma rakk ju baax la. Mm-hmm. suma doom la sax. Mm-hmm. parce que sama doom sama taaw at joma yi fay am ni moom la am. donc war naa ko mën a conseil war nañu mën a déglu war ñu mën a dégg war a xam fi ñuy waxee soxlawuñ ci intérêt soxlawuñ ci dara waaye li ñun li ñu di wax mooy payunte beeg teesante beeg ak ak. Euh, wax waaw dafa bari te loolu baaxul ci mim réew boo xoolee bu wax mi réew mi dafa am lu ko lu ko ceinturé dafa am lu ko tënk te xale li ñuy wax nii ne ñun de bu doon suñu sago ñu dem beneen réew parce que ñu tekki ci suñu réew mais leen mais tekki bala ngay tekki sa réew da xaar. li nga xam ne moom la moom la Ousmane Ousmane Sonko mi di tabax ci réew mi moom la Jomaay Fay mi président man Jomaay Fay sax la laa war a jiital sax may wax moom laa war a jiital euh, teg ci Ousmane Sonko dëgg la waaw parce que moom mooy président mm-hmm. mais wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi wut ay solution ñu ngi wut ay moyen am nga yaakaar si ñoom am naa yaakaar waaw ñu ngi wut ay moyens yu nga xam ne war nañu mën a defaraat tabaxaat réew mi parce que comme ni ma ko ni ma la ko doon waxee ci chinois yi dañ ne bala ngay tabax réew da ngay tabax nit ñi d'abord boo tabaxee nit ñi ba ñu pare mën nga tabax réew mi réew mi ca kaw la jëm. Mm-hmm. xam yaa ngi dégg. moo tax moo tax important euh, ku ci mel ni euh, Seydina Ousmane Sonko di am confiance am maanaam njàngat. ci man mii Idrissa Diop li ma koy wax. Mhm. mu am njàngat bu baax parce que ñun njàngat bi ñu amoon mooy def caravane caravane bu mag maa ngi ciy waxtaan ak autorités yu bari. Mhm. musiciens yu bari. waxtaan naa ci ak ñoom Ismaël Lo ñoomin ñoomin euh, Baba Maal mi fi jógee waxtaan naa ci ak moom waxtaan naa ci ak ñu bari ñu bari. ñoom Gorgui Ndiaye ñoom Youssou Ndour ñoomin ñëpp ñëpp dañ ciy bokk te man maa initié loolu. mooy caravane caravane boo xam ne. mooy caravane contre Barça ak Barsaq ak yooyu. Uh-huh. muy boo xam ne dañuy consciente xale conscientiser xale yi ne leen soxlu ngeen di dem. lépp lu ñu bëgg a tabax lépp lu ñu bëgg a am ñoom xale yi. mën nañ ko am ci réew mi mën nañ ko am ci réew mi Sénégal gi donc léegi conscience boobu la ñu wax ñëpp jàpp ci. Uh-huh. te wax dëgg yàlla jiili. Uh-huh. ñëpp gi ci commencé jàpp waaye na am lecture boobu na ko euh, Seydina Ousmane Sonko PM na ko comprendre mu ñëw contacter ñu. Mm-hmm. ñu wax ak moom ne ko lii la ñuy def ñun. pour réew mi ah, waaw pour réew mi lii ñu bëgg a def pour réew mi parce que xale yi jeunesse bi ñoom ñëpp fu ma dem yàlla may na ma loolu man. Mm-hmm. yàlla may na ma ko ba pare. fu ma dem xale yëpp ay génn ay milliers la ñuy doon. di ma dégg yaa ngi dégg di ma di wax ak man ci loolu te li may waxe xale yi mooy solution bi du ngeen dem li xew mbuur bërki dem li nga ko waxee li xew ci yeneen dëkk teg ma nga ma nga li li xew noonu mbuur mu ngay xew ci yeneen dëkk yoo xam ne ñoom xamuñu ko sax ñun xam nañ ko xam nañu dëkk yi nga xam ne mën nañu conscientiser ci caravane boobu may wax. Mhm. conscientiser xale yi parce que woy nag. Mhm. bu lépp demee. Mhm. way day des. ah dañ koy woy ay ay morceaux. dañ koy woy bien sûr. waaw mais li nga wax ni Idrissa nag. dañ koy euh, li nga wax ni xama lan moo tax moo am solo. maanaam réew mi moom bu ñu ko bëggee tabax. kenn ku nekk day am fu muy jàpp. dëgg la. imam bi nekk si jumaa ja di xutba di yee xale yi ak waxtaan ak parents yi yéen ñi nga xam ne ay artistes ngeen nga bëgg a initier ab caravane boo xam ne waykat yu mag yeeg yu ndaw yeeg porteur de voix yëpp a ciy nekk mm. ngeen génnee ay single def ab caravane dem ci palace yi waxtaan ak jeunesse bi jàpp naa ne lu am solo la xam nga sànq maa ngi la koy wax sànq Idrissa xam nga tey marine nationale boo xoolee mm. maa ngi def liggéey bu am solo mm-hmm. bëri na gaal yoo xam ne maa ngi koy intercepté loolu dëgg la waaye bëri na tamit ñoo xam ne ñoo ngi rëcc gaal yi nga xam ne rëcc yi dem mm. xam nga tey xale yoo xam ne ëpp nañ téeméeri nit waxtaan ci seen biir jokkalanteeb xaalis préparé ko lu mat un mois wala lu ko ëpp kenn ku nekk jóge fenn xanaa fu mel ni mbuur war na mën a am ñoo xam ne chaque jour ñoo ngi jaxasoog mareyeurs yi jaxasoog euh, pêcheurs yi jaxasoog askan bi ba képp koo xam ne yëg nañ ne yaa ngi bëgg a dem ci gaal ñu fexe ba ubbi ci euh, ay xibaar. bien man loolu moom a jaaxal man. mais loolu gis nga loolu. li ko waral yëpp mooy il faut mu am suivi. Mhm. il faut moom am conscience collective. conscience collective. waaw foog mu am maanaam conscience mbooloo. Mhm. ñu suñuy doom lañu man bu ma demee ci ci plage yi wala ma dem ci xale yeeg ay milliers la ñuy doon dañ may déglu ñoom ñëpp may déglu boo ñu ne eh père Idrissa lu mu wax lu mu wax waaw nañ jéem a conscience ci li mu wax parce que duñu mais il faut que ñoom autorité yi fi ne foog ñu xam lan mooy lan ak kan mooy kan ñu jéem a jël lenge yi jox ko ay nit ñu nga xam ni c'est leur métier. d'accord ñun suñu métier mooy dem am yërmande am xol bu laab wax xale yi te laaj ñu ci kenn bërëm xale yi duñ ñu laaj dara xam lan ñu lan lañ ñuy laaj. Mm-hmm. mooy waa père. ñun amatuñu yaakaar. loolu la xale yi wax. loolu la xal loolu la ma xale yi di wax man dama per xoolal fi mu nekk nii. léegi loo leen man dama wopp sax dama feebar dama feebar yaa ngi ma fekk nii. loo leen dama dama feebar ba ba ba yàqu mais. Mhm. xale yi jaral nañ ma man ma tënk feebar boobu ñëw pour wax ak autorité yi wax ak Diomaye Faye président la république bu Sénégal gii ñu ne ñu bëgg ko lool. ak euh, Seydina Ousmane Sonko. Mm-hmm. mi nga xam ni Sénégal gii lañu ñu kitte ko lool. moom ñoom la ñuy waxal pour autorité yi jël la nga ko ñun. Mm-hmm. pour ñu wut ay pexe pexe am na ñu ngi koy def depuis un an ñun mag depuis temps Macky Sall ñu ngi koy def ci plage yi. d'accord un an et quelques. Ah. léegi nañu am conscience jël lenge yi bu ñu ko joxee lenge yooyu buñ ñu ko joxee ñun. lépp lu jëm ci wàllum sensibiliser xale yi. sensibiliser ñun dañ leen sensibiliser. bu gaaw est-ce que bu ko defoon di ngeen sam résultat. barke yonent bi barke yoon teel mu xam nga xam nga xam yoon wi ah. Mhm. xam xam yoon wi. boo bëggee xam yoon wi da ngay miin yoon wi. Mhm. boo miinee yoon wi di nga am xam yoon wi boo amee xam yoon wi di nga xam fi ngay jaar pour jaar ci yoon wi. ñun xale yi xam nañ leen bu baax jili xam nañ ñu bu baax parce que ça fait je te dis un an et demi deux ans sax ñuy sensibiliser par rapport ak euh, Barça ak Barsax ak yooyu. Mm. mais jàpp nga ne yéen nga initié nii yow ak euh, artistes yu mag yi jàpp nga ne yéen bu ngeen si jokkoo woon ak Ousmane Sonko ngeen waxtaan ceeg moom man ngeen a dem ci place yi sensibiliser euh, xale yi génn ci ay single. et tout ça. waaw mais xam nga problème bi mooy Seydina Ousmane Sonko PM ñu ngi koy delloo suñu njukkal di ko jox suñu respect bien sûr ak suñu admiration ñun amuñu xaar ma yàlla kenn waaye dafa fekk ne tey jii li fi affaire yu toll nii catastrophe yi di gën a yokku ba léegi dafa am lu ko waral. ak accident yi. accident yeeg dafa nelawul. te bu gëmmee nelaw rek bu gëmmee nelaw rek une seconde àdduna tukki gëmul nelaw mi ngi fii xam na lépp yàlla suñu borom subhaana taala. loo bëgg a wax mooy Ousmane Sonko foog mu jël leng jox ko ñi mu ko jox wax ñi mu war a waxal pour que affaire yi mu am ci résultat yu palpant résultat yoo xam daf koy gis léegi sénégalais yi dañ koy gis léegi day am c'est-à-dire. résultat yu yu am solo. Mm-hmm. parce que boo xoolee xale yi ay nit lañu rek yàlla mooy yàlla ñun ay nit rek lañu ay créature yàlla lañu ñun bu ñu demee ba xale yi di ñu wax tey amatuñu benn espoir père ñun non dañuy dem. léegi bu ñu la waxee loolu leen tontu. li ma leen tontu mooy doo leen dem. bu leen leen fenn toog leen mais boo demee maanaam ci ci mbaalu jën yi am na jën yoo xam ne dañuy porox ndollu jaar fu ñuy jaar ak yooyu. d'accord mais buñ leen conscientiser. Mm-hmm. xale yi toog Ousmane Sonko euh, président euh, Seydina sonku Sonko déglu ñu ba pare dégg ñu booba ba tey nag président Ousmane Sonko président Pastef ñu ngi wax ak yow di wax président de la république boobu ba tey léegi nag c'est la dernière fois mujjantal bi ñuy wax parce que wax ji nag. li ñuy wax ci way wa wax ji bari na bari na bari na waaye defal ñu gis bu yàggee ñu gëm la léegi ñun dañu bëgg def xale yi gis ñu wuti leen ay pexe yoo xam ni ak ay wax yoo xam ne xale yi dañuy toog ci réew mi ñu tabax réew mi comme ni ni ko ni ko président Ousmane Seydina Ousmane Sonko bëggee d'accord ak ni ko président Diomaye bëggee et puis ni ko Sénégalais yëpp bëggee d'accord waaw euh, Idrissa lu jëm ci wàllum Euh, reddition des comptes maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ denkoon réew mi ñu ñu leeral ni ñu leen dénke woon réew mi yooyu mu mel ni ñi ñu dénk réew mi jamono ji pare nañ pour kenn ku nekk leeral euh, ba am na ñoo xam ne sax tere nañ leen pour ñu génn si réew mi ndax yow ànd nga ci loolu. non non man ànduma ci ay fayunteeg ay tesanteeg ay yooyu non no man du ma doxalee noonu. Hmm. li nga xam ne boo demee. ànd aussi ku ñu dénkoon alal réew mi leeral. non si si loolu am naa ci bien sûr ku ñu ku ku ñu dénk alalu waxuma alalu ré waxuma alalu alalu association sax te Sénégal nag association la. Mhm. buñ la dénkee alalu association alalu mbooloo buñ la nee kaay leeral lii da ko war a leeral ak koo mën a doon. Mhm. waaw loolu man loolu moom ànd naa ci waaye xam nga lan laa àndul. Mhm. mooy fayunte ak tiisoon tiisante ak ak ak teesante loolu laa àndul mooy hmm. booy booy xeex waxuma xeex xeexu xeex hmm. waaye ngay yóotu dara waaw yóotu dara ba ba yàlla subhaana taala ak mbaaxaayam mu jox la loolu nga doon loolu nga doon yóotu mu jox la ko wax amatul léegi defal ñu gis bu yàggee ñépp lay gëm Mm-hmm. waaw man loolu ci fonctionnement boobu la nekk man mais affaire u euh, di mer yooyu léegi mer boobu yow Seydina Ousmane Sonko da nga war laaj sa bopp yow. Mm-hmm. ñun du ñu nëbb wax danga nga laaj sa bopp yow Seydina Ousmane Sonko. Mm-hmm. lu tax ngay mer lan la mer jaru ko fi. jarul mer jarul xuloo jarul xiiro wala tongo wala yooyu jarul ngay mer pour kenn. Uh-huh. parce que sa façon bi ngay waxe uh-huh. nit ñi sénégalais yi en tout cas dañu foog ne yow da ngay mer rek. Uh-huh. alors que ku la jege xam la xam na ni doo nitu mer doo nitu keeg yooyu mais ni ngay waxee. la façon de donner. vaut mieux la façon de recevoir. ki lay jox dara bu jox milliard sax ni mu la koy joxe. pour nga accepter ko dafa dafa am solo lool ni mu la koy joxe. macha loolu dafa am solo am na solo lool ci ñi nga xam ne ñooy aussi. Mhm. ñoom la ñu dénkoon bërkaati dëmb réew mi. Mhm. bërki démb réew mi ak bërkaati dëmb réew mi. Mhm. ak teyu réew mi. ñoom ñëpp réduction des comptes dafa war a am am na solo trop. d' accord trop trop. d' accord jërëjëf euh, Idriss euh, Diop ñu wax ci mbiri euh, Cheikh Omar Diagne ak kàddu yi mu yëkkati ci jumaay Touba ak ci màggal gi coow li bëri si yow lan moo ci sa xalaat. xam nga boo kontaanul. Mhm. ñu de kontaan nañu de man dey kontaan na lool ci ni diine yi taxawe fii ci Sénégal. Uh-huh. ni mu amee parce que loolu moo tax ñu nekk ñun Sénégal uh-huh. moo tax Sénégal doon exception uh-huh. képp ku bëggul nag tarixa yeeg diine yeeg kilifa diine yeeg yooyu képp ku bëggul accepté woo ko mais toxul nga dem beneen dëkk génn réew nga dem bul nekkati Sénégal Sénégal loolu moo ko ceinturé loolu mooy suñu valeur ñun loolu lañu am kilifa diine yi rek la ñu am ak kilifa aada yi ñoom moom rek la ñu am léegi bo boo demee ba bëgg turoo loolu. Uh-huh. ah. Uh-huh. ñun de bëgg man de Idrissa Diop man kilifa diine yeeg aada yi rek laa gëm. mais mais tey euh, ah, Cheikh Omar Diagne li wax yow euh, même nee nañu sax Ousmane Sonko bi mu demee Touba euh, ñaawlu na ko. no man weesu naa sax weesu sax ñaawlu boobu. Ah. weesu naa ko de. déggoo man la ñun kilifa diine yi rek lañu am bu doon kilifa diine yi Sénégal gii du doon senegal gi mu doon. dëgg la tey senegal gii ñu ne nii. Mm-hmm. du doon gi ñu doon ni tey ñu exception nag. Mm-hmm. ci monde bi ci àdduna bi yëpp fu ñu dem ñu naw ñu fu ñu dem ñu respecté ñu. Mm-hmm. kilifa diine yi dafa am solo man weesu naa sax fu ñuy waxee. d'accord na d'accord ma kii ku bëggul daal lii ma wax nii ku ku uh-huh. ci ci kilifa diine yi uh-huh. jëlal say dëbës rek nga génn réew mi génn Sénégal gi parce que ñun de ah, kilifa diine yi am na ñuy wax dinañ ko war a dàq man weesu foofu yëpp dàq gi lu am la weesu naa foofu yëpp man maa nga ca kaw paase nga dàq gi paase naa bu yàgg dàq <laughs> nañ ko sanctionné nañ ko def lii yooyu yëpp du amul solo xam li am solo mooy lan ji li uh-huh. mooy boo bëggul kër ga nga dëkk boo ko bëggatul bëggatoo fa dëkk xam looy def uh-huh. dangay ngay toxu uh-huh. njaañeen njaañeen boobu na toxu rek dem beneen réew mais lii Sonko ak Diomaye seen yoon nekku si voilà mais seen yoon nekku ci seen yoon loo xam ne sa décision personnelle la yow yow kay yaa xam li nga wax. Mm-hmm. yaa xam li nga wax yaay responsable li nga wax te yaa maanaam yow yaay yaay responsable li nga wax. dëgg la responsable boobu nga nekk nag jaañ naar. Mm-hmm. jaañ jaañ naar jaañ naar ñetti yoon responsable boobu nga doon waroo am benn problème wala benn yitte wala benn looy wax. kilifa diine yi. dëgg parce que ñun kilifa diine yi. Mm, wax dëgg yàlla ñoom la ñu gëm bu ñu bu suñu bopp méttee du ñu dem pharmacie de. Mm. ci kilifa diine yooyu ñuy dem ñu ñaanal ñu bopp bi tane wala bopp bi wér. jërëjëf jeex na jërëjëf Idrissa ñu lay sant la gërëm. maa ngi la sant di la gërëm di kontaan wax dëgg yàlla di mujjal nag. Mm. sama wax ci président Diomaye. Mm-hmm. ak premier ministre Ousmane Sonko. lenge yi jël leen ñu jébbal ko mbaaro farwaay lenge walwaan jéeri farwaay lenge ñun uh-huh. li ñu gëm mooy wolofal mbaaro uh-huh. farwaay lenge walwaan jéeri farwaay lenge mbaaro farwaay lenge walwaan jéeri farwaay lenge ah. dañuy jël lenge yooyu ñu jox ko ñu ñu ko war a jox bu ñu ko joxee en tout cas ñun de dañ ko doxal te duñu dinañu am résultat yu wóor ci conscientiser jox conscience collective xale yi ñu bañ a jox lenge yi ñi nga xam ne la yàlla xam doy na. jërëjëf voilà mu ngi noonu daal. jërëjëf euh, Idrissa Diop di artiste musicien mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci Baol Info TV ñu leen di sant di leen di gërëm.